parce que tout à l'heure yaa ngi wax caution wax parrainage il y a eu un rush c'est vrai dem jëli kayit te doo fay dara ak dem yóbbu caution c'est différent dem yóbbu kayit lu yomb la c'est une publicité c'est un moment de communication et cetera et cetera mais ça renseigne aussi peut-être ça peut renseigner sur euh, la situation le statut des candidats de ñi nga xamante ne demoon nañ jëli parrainage xëy na pare wuñu na ils n'ont pas les moyens xëy na dañ doon show xëy na aussi le parrainage était une occasion pour faire des affaires loolu aussi lu ñu mën a observer mais dama bugg a taxaw ci Karim moi j'ai l'impression que les politiques pensent que fi ñu nekkoon en 1960 foofu lañ nekk ba tey les choses ont bougé les Sénégalais n'éliront pas des personnes qu'ils ne connaissent pas ou bien des personnes qui ne sont pas investies. Avoir, être informé du Sénégal par ses militants et vivre le problème, c'est différent. Man Mala, je ne voterai pas pour un candidat que je ne vois pas, qui est absent du pays, qui va venir. C'est comme ce qui était arrivé en 2012. Il y avait, euh, il un candidat, euh, taxaw temb nu mu tuddati woon sax Ibrahima Fall oui il vient on nous présente comme un expert comme quelqu'un qui a fait la banque mondiale comme quelqu'un comme quelqu'un loolu nekkatul baromètre wala fi nit ñi di natte on on regarde les candidats en termes de ce qu'ils de ce qu'ils représentent de leur attachement au s'absenter du pays pendant très longtemps deux mois normalement il ne viendra pas peut-être en décembre buy ñëw xëy na il va venir en janvier et comment il, comment il va régler ce son problème de communication <coughs> parce que kan moo mës a dégg fii Karim mu communiquer dans les langues du pays parce que la campagne se passe avec la langue du pays ku ko mës a dégg il va parler avec qui il va s'adresser avec qui oui il y a des nostalgiques il y a des gens qui aiment ñu koy rousser Wade wooteel ko ndax Wade mais d'autres ne le feront il y un nouveau électorat à prendre en compte qui est très attaché à une nouvelle dynamique qui est là qui s'est installée depuis un certain temps loolu buñ ko fàtte c'est-à-dire affaire bi du messianisme du du luxus luxus ceux qui disent à Karim qu'il va faire mal ils sont en train de le tromper ñu ngi koy nax il n'est pas là les comme c'est pas comme ce que tu dis yaa ngi wax léegi léegi nii sénégalais yi dañ ko namm ci dëj yi même même dara yi c'est de l'exagération quand tu dis que bu ñu demee ci dara yi ci ngénte yi tout le monde les gens ne parlent pas de Karim c'est ça la vérité c'est au niveau du parti que vous en parlez Karim n'occupe pas les débats il est oublié il est passé aux oubliettes loolu il faut que ngeen am ci loolu ngeen war a mën a sukkandiku peut-être reconnaître na qu'il est passé aux oubliettes et voir comment travailler peut-être à le faire revenir et le faire accepter ñun information bi nga am nekk ci mbedd mi nga ko jële man du boobu information laa am jële ko ci mbedd mi peut-être aussi da nga gëj Sénégal wala tu de la diaspora et cetera xëy na température bi buuba di wax xam nga boo bu fekkee na nga war jóge France di ñëw li ngay naan dëkk bi ak fugg bi ngay am après si tu prends la température di nga di nga daal épice Bouba a parfaitement raison en disant ce que les locaux disent et ce que tu dis c'est diamétralement opposé le ton n'est pas le même pour man température bi c'est important maintenant obstacle am na loo xamante ne yaa ngi koy wax ci pur pur pour moi c'est un parti politique qui a un électorat fixe qui ne bouge pas est-ce que au sein du parti parce que nee nañu effectivement tout à l'heure dans ton développement wax nga ni dafa am euh, le lead le guide moo ko tànn est-ce que moi je vais poser cette question là est-ce que le PUR est un parti démocratique et bëggoon naa nga ñëwaat sur les raisons de Issa Sall bi ñu fa jëlee mm-hmm. qu'est-ce qui s'est passé réellement parce qu'il était brillant C'était un brillant intellectuel, un mathématicien, quelqu'un qui un homme qui sait nit bu am xam-xam la woon en tout cas et jàpp naa ni en 2012 il avait le meilleur programme. 2019. 2019 il avait en 2019 il fait partie de ñi nga xamante ne techniquement il parlait programme et il était très respecté peut-être nag après je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ba ba mu bougé est-ce que ce type de parti yi nga xamante ne d'obédience confrérique ah est-ce que jàpp nga ni partie yu demee noonu am nañ avenir dans ce pays-là dans un pays oo on a des des d'autres confréries on a tel tel tel tel est-ce que d'ici quelques années il ne va pas subir le sort du PVD de Serigne Modou Kara parce que aussi les partie de politique d'obédience confrérie d'idéologie confrérie parce que aussi am na ci doole est-ce que am nañu avenir dans un pays comme le Sénégal parce que seen percé il perce difficilement affaire bi ma bëgg a laaj euh, euh, pour euh, par exemple au gars qui est pour Benno à Diassi à à Diassi waaw à Diassi mhm. mhm. Diassi je me suis arrêté sur une vidéo Amadou Ba mu ngi toog Macky mu ngi toog mhm. un vieux qui est dans l'élevage defe naa sàmmkat la sax il di il di waxal ñu Amadou Ba. boo demee nga wax ko. boo demee nga wax ko te Amadou Ba mu ngi toog fay confirmer un peu le côté le côté le côté peut-être euh, impopulaire entre guillemets. il a été choisi par le président xëy na am na ay critères euh, il a un parcours et cetera jaar na fu bëri ci état. am na influence. Mhm. ci un peu partout am na carnet d'adresse et cetera et cetera mais comment vous réglez cette question de d'impopularité parce que c'est loolu c'est un c'est un élément qui renseigne un peu sur sa sur sur ce côté impopulaire. Mhm. te bëgg naa xam également par rapport à honorable bëgg naa mu wax mhm. c'est quoi le parcours de Karim parce que bëgg ak bu ñuy nen diw candidat la ñu ne xam-xamam lii la Macky Sall tu diras que c'est un <coughs> Amadou Ba on dira que c'est un économiste c'est il a fait l'économie ay impôts et domaines nekk na ministre de l'économie on dira que Sonko effectivement inspecteur des impôts et domaines la Bassirou yi inspecteur des am na ñu lu ñu leen mën a lu ñu mën a wax am kii Aliou Dia lu mu Aliou Dia lan mooy profession am dëggantaan. Aliou Dia il de, de formation oui. il a soutenu a travaillé dans le système international pendant 18 ans de développement. oui que Karim. <laughs> ce un candidat oui il a été est. tout que en fait il a presque été promu par lañ mën a xam dans le pas on ne lui connaît euh, une profession je ne lui connais pas une profession est-ce que mën nga mën nga delluwaat un peu ci parcours Karim concrètement quoi mm-hmm. c'est-à-dire okay, à part les mm-hmm. à part les nominations politiques là quoi ok bien noté